wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki jàkkaarloog ñun dañu seetaan waa daayira nooru daara yi nii Touba ca kanam di ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba baaxe ñu fas yéene ñaani Serigne tubaay yi nga xam ne ñaan na ko ci dëkkam bii ñu dox jëm ca loola ngir ñaan googu nangoo ci seeni loxo loxo daayira boobu nag jëwriñ ji mooy Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne lépp luñ ciy def moom lañ koy defal waaye nag ki ko jiite moo di Serigne Habibullah ibnu Cheikh Mahamadul Fadal mu feggoo ak Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Habibou ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko seq président Serigne Abdou Fatah Gueye waaye seq ko nag ak soxna Bintu Mbacke moom Serigne Habibou ñu ñuy waajal lan bis bu mag bis bu tedd bis boo xamante ne bii jigéen ñi Touba ca kanam ña nekk ca Ndakaaru ñoo ko fas yéene woote. ñu ne ci biir réew meeg bitim réew ñëpp fépp foo xam ne ab kuréelub jigéen nekk na fa wala mu de ab association boo xamante ne bii liggéeyal lislaam ñor na ko waaye day liggéeyal Cheikhul Khadim bis boobu jigéen ñi Touba ca kanam di woote le 12 juin lay doon di amee ca Ndakaaru ca barab ba ñuy wax Cissesse bis boobu nag moo tax ñu toog fii fas ko yéene woote. muy bis boo xam ne nag dañu ci woo ñëpp. di jiital nag ñi nga xam ne ñooy waa Touba ci kanam ñoom ñoo yor liggéey bi ñi nekk ci biir réew mi ak ñëpp nekk ca bitim réew soxna yi nga xam ne ni ñoo nekk ci diaspora bi te bokk ci Touba ci kanam nañ xam ne bis bi kenn jiitu leen ci seen bisu bopp la moo xam ñi nekk ci continent Amérique wala ñu nekk ci continent Europe wala ñu nekk ci continent Asie wala ñu nekk ci Australie baa ñu nekk ci continent Afrique ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo ci seen bisu bopp bi nga xam ne mooy bisu soxna yi ci kanam Euh, bépp liggéey bu ñu yëkkati di ci soxla mbooloo bu la ca soxna yow wuy see rek la nga soxla ci mbooloo danga ko am ndax bu ñuy wax njaboot soxnaa tax euh, ci tubaab sax baatu femme ak famille dañoo xaw a lëkkaloo te bu la soxna yi xasee ba wuy si gone yi daañu la wuy si waaye kilifa yi sëriñ si tamit borom kër yi daañu la wuy te mel na ne loolu bi Touba ca tàmbalee léegi feeñ na ci ne soxna yi ñoo gën a wuy si te bu ñuy wuy si dañuy indaale njaboot gi ci biir loolu nag kon ñu dara jaale leen bis boobu ngir ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ak ak ñi ci nekkoon ñu gën a mën a mànkoo ànd ci liggéey bi ndax jàpp nañ ne euh, Touba ca kanam ñaari million yi nit lay wut kenn ku nekk weer wu dee nga jox ko ñaar téeméer mbir la mu rëy rëy nag sémb bu rëy la waaye jéego yi bokk na ci jéego yi yi tax yuñ jàpp ne mën naa tax ñu gën cee gaaw gaaw a àgg kon noo ciy woo ñëpp le du juin ca CICES. li waral nuyoo bi ak jotaay bi nag mooy bés bi ñuy taxawal ca CICES Touba ca kanam moo waral ñu woote jotaay bi di ci soññ suñ mbokki jigéen ñi soññ bi nag maa ngi koy bàyyi ci loxo soxna Ndeye Marème Mbacke mu jot leen ma ko. kon ñi ngi soññ soxna yi ci bis bi nga xam ne dañ koy jagleel soxna yi ñu fës ko defee ca Ndakaaru ca war koo def fukki fan ñaar ci weeru soin ñu di ci soññ jigéen ñëpp ci ndigalu soxna Bintu Mbacke képp koo xam ne bokk nga ci Touba ci kanam bis bi yaa ko moom ku ci bokkugut te bëgg cee bokk. bisimilah képp ko ko ci bokk te gis képp koo xam ne nii war na caa bokkagu ca te bëgg na caa bokk te mën naa ñëw alhamdulilah woo nañu ñëpp bàyyiwuñ kenn nañu def nag nañ daan def rek jigéen moom mës a des te jigéen mës a des ci xare mës a gis def ginnaaw ci leen jumaay Tuubaa ji jigéen ñee ci mënoon leneen loo mën a doon jigéen ñaa ci man ñi ngi woo itam daayira soxna jaara yi nga xam ne ndax bu ñuy wax soxna yi nag defe naa soxna jaaraa te niñ mën a ci li niñ mën a ci lépp kon ñu ngi woo daayira soxna jaar yëpp yi nga xam ne nii mu ngi ci àddina bi muy Sénégal muy diaspora bi muy feneen ñi ngi leen di woo di ko jaaral nag ci turu soxna Bally moom Serigne Mountakha ndax Serigne Mountakha mooy jëwriñu Touba ci kanam teg ko ci loxoy ay rakam kon soxna Bally ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy teg ci loxoom ci daayira yi nga xam ne mooy daayira soxna jaara ak fu mu mën a nekk nag woo nañ leen ci bis boobu muy fukki fan ak ñaar ci weeru soin ca Cissés ci Ndakaaru ñu ciy woon nag képp ku yaakaar sëñ Touba rawatina nag ñi nga xam ne ñooy waa Touba ci kanam waaye di ko yëgal nag képp koo xam ne nag bëgg Touba jëm ca kanam itteel na la foo mën a nekk ci àddina bi ñu ngi la koy yëgal te di la ci bàyyi xel te di la ci séentu ndax bis la boo xam ne bisub yaatal la bisub soññee la mbokki taalibe bi yëpp xam ne bis bi seen bisa bis bi mboolem ko yàq sëñ Tuubaa sa bisa ak foo mën a nekk ci àddina bi kon ñu ngi woo ñëpp di ci soñ ñëpp bëgg ñëpp ñëw teew ci ci njiitu soxna yi nga xam ne nag ñoom lañ ko teg ci seen loxo ñu ci seeni tur it ñu ciy gën a soññ soxna yëpp rek rawatina soxna yi aju ci yoon wi te ay mbooloo di topp seen ginnaaw. bis baa ngi noonu képp koo xam ne yor nga daayirab soxna jaaratullahi Mariama Buso wala nga yor daayirab keneen koo mën a yor te muy tuddoo ci biir yoonu murit wala nga yor ab fondation wala ab association lu mu mën a doon rek soxnay Touba ci kanam tàllal nañ la loxo ngir ñaari millions yi murit yooyu ñu bëgg million beeg genn wàll nee dañoo bëgg ñu doon jigéen ñi kon nag jigéen ñi la sëñ Fall waxoon ne yéen man mën ci jumaa ji ñoo war a mën ci daayira yi kon bis baa ngi noonu la lay doon ca weeru tubaab di weeru juin di amee ci Cissé asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu leen wax dañ di soñ ci bisub Dakar bi ñu war a amal le 12 juin ca Cissé ñu ci woo mbokk soxna yëpp fépp fu soxna nekk rek ñu la ci woo di ñaanal ñu egg ci bis bi ak jàmm ak salaam tam jàll si jàmm. soññ nag bu baax a baax suñu mbokk soxna yi ñu génn comme niñ ko daan defee rek gën a góorgóorluwaat bu baax baax ci verre blanc bi moom am na solo lool ci bis bi li koy taaral la ñëpp rek ñu àndandoo ko bu ko defee dina gën a taaral bis bi képp koo nga xamante ni am nga verre blanc ñëw nga sol ko boo ko amul tamit nga wuti ko ndax bis bi jar na ko. bisub soxna yi Ndakaaru yi di bisub Tuubaa fépp foo xam ne waaye nga fa rek te nekk ci liggéey Touba ci kanam Nourou Darayni wala nga bëgg cee bokk ñu ngi la ci soññi ah, di la duus ñu ngi koy defee si sees Dakar kon ñu ngi soññi suñu bopp di soññi ñëpp. ñoo ñu soññi soxna yëpp bàyyi kenn di soññi xarit yi di soññi dëkkandoo yi di soññi am di jàmm yi waa Ndakaaru waa Touba ñëpp ak mboolem fa soxna nekk rek ñoo ngi la soññi. ci biir Touba ak bitti Touba ak ci gox yu fasanti koy yëpp rek ñoo leen ciy woo di leen soññi bàyyiwuñ kenn. sama mbokki taalibe yi sama mbokki jigéen ñi ñëpp soññi naa leen ci kàddu soxna Ndiakhate Mbacke nee na mag góor jigéen ndaw bàyyiwut kenn su sañoon daal si ses xam ni jigéeni ñi Touba yëpp ñëw nañ fësal seen liggéey ci Ndakaaru googee. waaye naka noonu tam la ñuy soññee suñu góor yàlla yi ndax peccum liir moom bu neexee rek ndey jàpp ca mbagg ya te ku ne xam na ne góor ñi moom ñoo ñu dooleel ñu ngi soññu góor jigéen mag ak ndaw di wax waa Dakar nag eh, ñu bëgg département Dakar yëpp commune yëpp ku ci nekk rek na génn ñëw si ses Serigne Touba la moom ñëwee bu ràmpay ñu konta la ñu ci woo góor di ci woo jigéen di ci woo mag di ci woo ndaw nag mboolem daayira yi nga xam ni ñoom lañ jagleel soxna maam Seynabou Ndiaye nag ku ne xam nga ne soxna maam Seynabou Ndiaye cërub Cheikh Moudou Abdoulaye Fall Ndar la rawat na nag diwaanu Dakar foofu ci Masaalikul Jinaan soxna saa ngi soññu soxna Ndey Ndaw Baye Fall foofu ca Masaalik di soññu mboolem waa kuréel gi asalem soxna Ami Saalum Jum eh, ci maam seen bu Njaay waaye di soññu jëwriñ soxna Gàmmu Jóob mi nga xam ni pour di jigéen foofu ci Masaalik mooy moo fay jëwriñ jë soxna saa leen di soññu di xam leen nag le 12 juin incha allah foofu lay waaje Masaalikul Jinaan wuti si kon mi ngi leen koy soññu ngeen jéem a waaj ànd moom liggéey boobu ca xam ne lu liggéeyal sëriñ Touba rek euh, liggéeyal sëriñ Touba moo ko gën wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat